kuréel bi ñu duppee mais de l'Espoir amal na tey ab journée de don de sang ngir rek taxawu askan wi ci pàcc boobu. li waral tey jii sunu rassemblement bi muy euh, don de santé bi ñuy def maye deret mu nekk un natt noble bi nga xam ne dafa dañ ko estampillé di lislaam et dans toutes donc loolu dafa nekk un acte noble jafe-jafe àdduna yi fu mu toll yi nga xam ne. accident yi remous yi nekk dans la politique le plus souvent les structures politiques surtout jigéen ñi nga xam ne dañu nekk jigéen ñu wérul yi xale yu ndaw yi dañuy am problème le plus souvent bu ñu demee ci structure de santé yi de santé pour mën a am des poches de sang moo waral tey waa Ashabul Yamin yi ñëw tey ji seen premier jour de lancement ne dañuy def acte bu noble bi muy don de sang ñu nekk ab kuréel bu yëngu ci lépp luy sociale ngir rekk jàppale askan wi rawatina ci octobre rose bi ñu digmal suñu yëngu-yëngu nag mooy dooleel lépp luy structure de santé dooleel néew di doole yi maanaam daara yi jigéen ñu amul formation ñu jàppale leen defal leen ay formation de transformation waaye itam ñu fekkee ñi nga xam ne dañoo nekk dans les coins et recoins yu pour sori laaj leen seen ma bët dooleel leen ci saafaral leen ko. ñu amale bi les journée foofee ca centre de sangi sanguine mu nekk jéego bi nga xamante ni président centre bi mu ngi koy rafetlu bu baax. Euh, journée bii ngeen organisé journée bu ñu neex la parce que ñun loolu moo ñu fi bàyyi fexe ba deret disponible nekk fii nga xamante ni ku ko soxla rek ak heure bu mu ko soxlaa rek mu mën a am deret bi parce que deret comme ni ngeen ko xamee du lu ñuy jënd lu ñuy maye la te nag loo xamante ne amul njëgam dañ koy maye ki la koy maye moom doo def lu dul sant ko. di xamle plan yi ñuy teg ngir rek gën a ñoŋalaat mayum deret ci biir réew mi. léegi tamit euh, stratégie yu bees yu ñu jël am na ci euh, yoo xamante ne conseil bii ma war a woote ci fileeg une semaine dinañ ci ci waxtaan moo di dañuy bëgg a ay ambassadeur du don du sang mais ambassadeurs yooyu nag dañoo taamu jël leen ci këru diine yi ndax ñoom yàlla def nañu ay régulateurs lañu te bu ñu wootee nit ñi dañ leen wuy si te ay jaamu yàlla lañu te xam nañu ñoom ci seen bopp ne mais deret jaamu yàlla. association Main de l'Espoir fas yéene dugal loxoom ci lépp lu laal social événement religieux ba ci wàllum wérgu yaram Khalifa Babacar Sène di président centre de transfusion sanguine di xamle rek gis nañu amélioration ci centre bi te dinañ teg ay stratégie ngir ñoŋal ko.